président wax na léegi metre na en garde ñëpp wan leen ni leen réew mi réewu jàmm la waaye nag réew mi li muy nekk nekk réewu jàmm am na ñoo xam ne ñu ngi fi di yëngu te jàmm taxuñu ñu jóg loolu nag yaatu na fi ci forme bu ne nag ñi ngi ko doxal forme yu bëree bare bare pour destabilise population yi perturber seen dund loolu nag kenn ku ne war cee ne agent boo amulee yet amuloo fetal am nga làmmiñ am nga bëtit boo gisee nag lu jaaduwul wax ko man kat li gis fii nañ ko toppatoo loolu nag roru indicateur la kon ñun ñëpp pour sauvegarder rek nation bi dañoo war a nekk ay indicateur moom daal ku gis loo xam ni loole yow mënoo ca dara wax ko ki man dara gannaaw yàlla mu jóg taxaw ci moom loolu yëpp nag ci boppam la daje waaye nag du moom kenn rek moo ko war a saytu ñun ñëpp ñoo ko war a saytu ñiy yëngu ñëppit nag di tuddoo diine dugal ci réew mi diine joo xam ne mag ñi xamuñu ko woon te diine ji mag ñi nekke woon ca la ñu ne ba yàlla d'accord ca ak ñoom yi ba yi di xew yeb xew ñi fi gis lu bes nak di ca top ak di ko jéem jëmmal li ñuy def xamuñu ko ñom nit dal lu mu doyo di doyo di Warna fonk bopam ken waru la wedd sa bop sa mam sa mam dundu ñetti téméri at di yëngu nak ci ba yàlla fekk ko ca mu siiw ca am ca lu ca am yow benn nit jóge fee rek amagul 30 ans ni yow kat la sa maam ne woon du dëgg bàyyi ko kurus daganul haram na takk téere xaraam na baqiyat saalihat xaraam na wasiba xaraam na yii ku ñu ko def nag ci sa bopp nga gëm ko doo dara ne te dafa am nag nit ku ne nit nag moom balaa mën a baax am xam-xam te jëfe ko waaye balaa mën a bonit am xam-xam te nam ca ak caay-caay ne dafa am nag coppati goo xam ne gi rek am na depuis samedi nag ne moom mii moo soppiku nag ne tuddatul Serigne Mbaye sëñ kër la tudd <laughs> ah ne Serigne Babacar si la tudd ne ndax keroog ca samedi ja waaja daf ko nuyu ni ko mbay mbasu <laughs> mani ni ah, man nag naa soppi ko nag jot na mbay mbasu daal wuti tama rek moo ci war a topp <laughs> ne Papa Malick ne wolof mooy yàq tur Abu Bakrin ñu ni Mbay Omar ñu ni Ngaala Ousmane ñu ni Mbërgu Ali ñu ni Gàllaay wala fay yàq tur waaye moom alxalifa Seydi Abu Bakrin si moo ko moom kay ne ku ko woowati ci sëriñ bay nag du la wuyu waay waay bu leen ko woowati sëriñ bay waay ne xamul nag ne xamul nag day rey xar waaye bu reyulee xarit lii mu leen wax rek jàpp leen ci fa tabaarakallahu Sidi Bakar ne yàlla nañ ko teewaat déggan yu déwén yu bare bari kenn ku ne wér wax leen amin kenn ku ne am xéewal kenn ku ne am jàmm kenn ku ne am sutura réew mi am jàmm réew mi buñ koy wax du réew mi ñi dëkk réew mi ñoo tax mooy ñëpp am jàmm bu ñu amee jàmm rek suuf si sedd jant bi sedd mar du rey kenn ñëpp am jàmm